asalaamaaleykum uh, waa Sénégal. maaleykum asalaamaaleykum El Hadj Sanex Samb. kooku <laughs> waaw waaw tey moom. Ah. Ah, tey ñaari Baye Fall lañ yi. xam nga émission ba am ñaari ñaari Baye Fall. waaw mooy tey. Touba Gueye dañagul ci waaw Touba Gueye ñu topp. Uh, waaw waaw asalaamaaleykum. gan gi nag bu lépp Ndiaye. maaleykum salaam. waa Ndiaye bala ñoo commencé. waaw. Hmm. dañuy jaale Serigne bu Kunta bu Ndiassane. Ndiassane ngi koy jaale senegal gi yëpp. Hmm. di ko jaale waa Ndiassane yëpp. Maguette Kunta. waaw tey ñaan ki toog. waaw yàlla bàyyi ko fi. te guddal aw fanam. ak Cheikh Bou ak Cheikh Bou suñu xarit bi. Maguette Kunta waaw Cheikh Bekay Kunta. moom moo ko wuutu. donc yàlla na Cheikh Bekay Kunta. donc Maguette Kunta Cheikh Bou Diop ñu ngi jaale. kilifa gi dem. waaw Ndiaye. waaw waaw xam nga ci loolu nga wax noonu. waaw dañuy sant yàlla. Mm-hmm. ndax senegal yàlla def fee yàgg def ay mag ñu baax. la dëgg mag ñu nga xam ne bu ñu fi teewee di veillé ci ñun mhm. buñ fi wutoo it mhm. di veillé ci ñun dëgg la ndax mag ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk mhm. boo waxtaanoon ak moom mu ne la su ma rusul diw soo ma woowee sax ci photo ma wuyu la dëgg la kon ñu teew fii day veillé ci ñun ñu dem dañuy veillé ci ñun kon bu ñu bu ñu demee mën nañ ne dañuy am lu ñu naqari waaye amuñu sax lu ñu naqari ndax ay jullit lañu ndax defe naa ni yàlla nee na lu ma bind ci àdduna hmm. doomu aadama laa ci gën a fonk hmm. te ñun aussi yàlla rek lañ bëgg hmm. kon yàlla bu la fonkee woo la nga wuy si ko dañoo war a kontaan du dëgg kon alaaj ñu ngi koy jaale ñëpp di ko jaale waa Sénégal ñëpp dëgg la waaye Samb ba ñu jógee Touba ñi ngi jëm Tiwaawan te toogoon nañ fi wax nit ñi dem suba la alxames waaw suba la burdu bi di ubbi burdu bi muy fukki fan defe naa ne waaw kon nit ñi nañu xam ne. yàlla moo leen yóbbu fan. ñu def gàmm gi. dañuy buddu al alxames. waaw ajjuma gaawu dibéer. waaw. altine talaata alarba alxames. waaw ajjuma. waaw gaawu. waaw. ñu noppaliku. ñu ñu ah, tënk a rox lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi sàmm xam nga nag burdu bi buy ñëw sama xel day dem ci maa abdou ndeysaan borom daaru abibi waaw xulub naa yow moom lañ la tuddee direct yaa nga ca kaw kenn du moom nga jël juróom-ñaari jikko ya ah, yaakaar naa ko de kooku dafa stabiliser woon Sénégal kooku ndeysaan bu coow di waaj a jib sax Sénégal da ngay gis mu génn na saraxaleen diw. Mm-hmm. waaw waaw kooku mooy saraxaleen sa man. Oh, saraxaleen euh, euh, euh, lii ak lii ak lii ak lii daal boo tey Ndiaye wax ah, loolu c'est en résumé. waaw koy xam fu may waxee. waaw kooku moo doon wax nañ nañ tàppe xol yi. Mm-hmm. nañ tàppe xol yi. Mm-hmm. ne boo duggee ci gaal. waaw yore ëmb. waaw ñaanal gaal ga mucc. ndeysaan bu gaal ga muccee di nga mucc sa ëmb mucc. moo tax moo tax gis nga. lu ñu nam ñun moo tax fii. dama ci waxtaan ak kilifa bu leen waneekum gan gi nag. muy démb. bi 17h jot ma waxtaan ci kilifa gu mag. kooku sax du politique de. mu ni ma seen émission bi lu mu guddi guddi nit ñi dañ koy seetaan. ndeysaan. sant yàlla la. mais éviter leen. Mhm. parce que defe naa ne sunu émission dafa am émission bu mu seetaan daal. am mu am tuuti dérapage ci wàllu xaste. ah. ku doon xaste ah, waaw ñun nag. waaw invité ba waaw invité ba. Hmm. Ah. xam nga li ma la wax. waaw. nit mën na fi ñëw wax soxlaam. Mhm, te du xas te kenn bañ koo xas. waaw te du xas kenn borom kër gi de loolu lañ digal. waaye nit ñëw fi nga naan ko koy nobanteel ak. waaw ku ku ku lay doxaananteeg yow ak. waaw yëfi ñàkk fayda daal. loolu dafa intéressé réew. loolu sax duñ ci dugg. waaw waaye kuñ fi invité yi. waaw boo fekkee dafa am ku ne ci dëkk bi def ko lu tax ñu xas ko. déedéet déedéet Ndiaye Ndiaye loolu loolu dañ koy interdit ci kër gi de. loolu mooy fii kenn du fi xase. duñ fi xas kenn. maam ah. maam moom kër gi. waaw waaw baax na waaw waaw baax na da ngeen may laaj wala da ngeen. yow moomatoo dara alaaj <laughs> gan gi ma tey. koy nit moomul. te mu te mu boo ko ni moo ko na ak fay gis nga caméraman yi ñoom Québec yéen a ngi axe bu ne yéen a ngi fay dugg bu a foog gros plan gum caméraman dañoo mer de ba ma ba ma kii ko. tey Kébé Kébé la grand réalisateur nga la. waaw ñoo waxal ma pare. damay présenté gan gi de wax ñëwal. parce que déedéet bu ma ko waxee day feeñ. Ah, li ma bëgg a wax jot a feeñ de. balaa ko waxal waxal waxal waxal bu ma ko waxee. <laughs> une grande dame. laa na doon wax. ah gisuguma sama bopp. ndax dañu naan. waaw.

ma ñëwaat kon une grande dame. waaw ndax derrière chaque grand homme nag il y a toujours une grande dame. dëgg la xaw a jommi waale tuuti. Euh. yàlla bàyyi ma présenté daam ku nekk seen gannaaw keneen <laughs> def liggéey. daam keneen seen liggéey. Ah, waaw ah, muy jigéen ju am fit. waaw di jigéen ju am jom. waaw. di jigéen joo xam ne daf ne ma Cheikh ma ne ko naam mu ne ma Sénégal yéen jigéen a fi def jaloore. ma ko wax ma mu ne ma laa li ngir Yacine Boubou def na jaloore. ñëwal ko wax ma mu ne ma Aline Sitoé Diatta la reine de la Casamance la Casa di Mansa def na fi jaloore. ñaar. mu ne ma Cheikh neel ñaar ma ko ñaar mu ne ma ñett mooy les femmes de Nder. Mhm. def nañu jaloore. wallaahi a mu ne ko ñeenteel ba xam mu ne ma lan. Ah. Cheikh dama di sëtu buur si ku mëndoo feen Diouf. Ah. moom nag loolu ku ko bëgg la. kooku mooy. waaw caméraman ñëwal. waaw mooy. Ndeela. Maajoor Diouf Dame de Fer. nuyool dalal ak jàmm. Dame de Fer. waaw eh! Marguerite Thatcher ngi toog. xam dara. waaw. <laughs> moom nag ku ñu bëgg la nag. Ah, waaw dafa daa yàgg xam nga lu tax ngoon naan bi tay neex. ñun dinañu dinañu woo soixante-dix soo ko yoo benn waaw. waaw lu ma jaaxal la ci kër gi. wax leen ci loolu soixante-dix góor la ñuy woo soo ko woo benn jigéen. te boo seetloo ku fi ñëw ñëwoon ñëwut. waaw toj nga fi ba nga ñëw. waaw acca mos na fee ñëw. dalal ak jàmm bu fi xulloo nag bu fi xulloo. du fa ñëw xaw bay. tey moom na na nooyee nooyee. Sénégal bu tawee rek non non day dëgër këcc. na dëgër këcc ah. na dëgër këcc. teg maa bañ a woo ci loolu. na dëgër këcc ah acca bismillah. moom dara du fi nooy. ah waa baax na. na dem d'accord. bismillah waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. dëgg la lay fay Diouf di la nuyu Sanex. da mm-hmm. ngay fay waaw <laughs> xarit la nag. Mm-hmm. sama xarit la. bu mm-hmm. may tooñ. yéen ñëpp maa ngi di nuyu. gonnal bi defe naa 2014 la woon defe naa. waaw waaw. waaw quatre ans après. quatre tey <laughs> li fi xew bari na. quatre ans après ma ñëwaat toog. di jaale nag toute la mouvement islamique. di leen di masawu ndax gis naa kër gi xaw naa weet. di gis naa leen nag euh, yéenay jàmbaar ngeen ndax fekk naa leen fi ngeen toog. julli fi. kër gën a xaw a wér. seen kër gi. ah tey la a ah. lu fi wér. la tey la a wér noonu. seen kër gi kat damaa ñëw xàmmeewu ma ko ndeysaan. lan la guddi nga guddi nga fi ñëw xam nga ñu bari dañu toxu. waaw xam nga tax xàmmee woo kër gi nga xam ne borom kër gi def na ko 700 étages ca kaw. waaw gracier la ñun suñ toll ñun la ñuy wutaleeg. TF1 par TF1 ga ca yàlla ñun moom la ñuy wutaleeg ci architecture. ak liggéey. barki yàlla waaw waaw dëgg la ñun dañoo nam cu. Euh, euh, oh. <laughs> ma ne. TF1 ba sa France benn rek la fi nekk Sénégal. waaw <laughs> Safir. Safir may TF1. Safir lan mooy Safir. da nga ne sa kaw. ah rajo bi mooy rajo bi ah, mooy rajo bi. huit étages de là dafa rajo. waaw rajo bi xëy na sax dégg naa dinañ ci ñëw. dëkk huit étages. waaw def ci ay ay waaw man rajo laa rek man rek rajo laa. dëgg la moo tax eh, kaay ma xamal la. Ah. damay bañ a publicité. Ah. mais yi ay wari la ci def yi ay western yi ñoon yi ay. amatul rajo dugg guma si nag dinaa def Safir Cash. ah Safir Cash waaw waaw nañ. kon kon ñëwal ñëwal naa Safir Cash ñëwal. yaa ngi ci nuyoo ba léegi. waaw. ah xam nga yow moom su may nëg yow il faut ñu lëbatoo bu yàgg waaw ate ñëwal kii temps am ji def deux heures de temps lañ koy defal tey waaw waaw demal soo leen dawalee rek duma daw kon jeex na kon mën nañoo dugg ci waxtaan wi mm-hmm. ah, damaa bëggoon ngeen may ma ma introduire ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal Ndiaye yow yaa indi sa gan yow yaa koy waaw ndax Ndella da nga di jigéen waaw te ndeysaan am na loo xam ne xew na fii keroog ca Maris mm-hmm. muy benn jigéen ju nga xam ni dafa faat borom këram. waaw te nga di jigéen te di yàgg défendre jigéen. ah. waaw Maris waaw. defe naa ci ay affaire de wujje la rek xam naa. Hmm. waaw waaw waaw ñu ne jëkkër ji da waaw. xeet yooyu la daal. dee la loolu war ngaa am message boo ci lancé en tant que jigéen. Hmm. may masu famille famille bi ndax defe naa jëkkëram dafa mujj a faatu tey. Hmm. ndax loolu laa gis ci réseaux sociaux yi. li ma si jot a dégg daal mooy fiiraange. da ko doon nax sene da euh, wutal wujju eh, ko doon nax loolu laa jot a liir xaw ma nag lan mooy histoire bi ah, xam nga jigéen rek bu ëmb am juróom-ñeenti weer donc euh, ndeysaan mu seytaane daal moo ñëw ci seytaane moo ñëw ndax jigéen yi ñëpp fiir mhm. xëy na avec l'âge man fiiratuma ah. avec le temps dootu fiirati waaw da ngay sax dañ wax ji donc waaye moom kii ma gis xale la fiiraange bu metti euh, dab ko mu saalit donc xanaa rek euh, di leen di ñaanal xolu muñ donc euh, violence faite aux femmes hmm. dafay indi musiba ndax danga ma laaj lan mooy sa xalaat lu yëngu rek lu ko yëngal moo ko ëpp doole. dëgg la ñun nag dañuy fàtte loolu. lu yëngu. Mhm. c'est la cause. Ah, dafa mel ni malaat bu jàkkaarloo ak yow. soo ko buggee fekk cause bi ngay dem xooli. ñun nag dañuy fàtte cause jël feeb conséquence bi ne na ko fang. waaw ne su. waaw waaw li ne ci suuf soubassement ba waaw. Mm. moo ko ëpp doole violence faite yi. Mm. bëri na si réew mi. barke Demba Ndiaye benn jigéen faat nañ ko rendi nañ ko fële si Italie. Oh. bi may benn sénégalaise bi may wax di waxtaan mu am kenn ku wax jigéen yi góor ñi léegi dañuy ut dañu ne amatuñu soxna jaara. Mm-hmm. man leen ku fi bëgg am soxna jaara. Mm. da ngay nekk maam Morante Sali. da ngeen wax ji. Mm. dafa jafe. Oh. am soxna jaara nekkal maam Mor soo nekkee maam Mor Anta Sali rek kër gi neex. waaw maam Mor Anta de euh, xamul wax bu ñaaw. Mhm. xamul jëf ju ñaaw. xamul xamul koŋ. Mhm. xamul ronni xamul bañ a jox mu lekk xamul jox mu naan. xamul génn guddi di di wër. ñun de ñu nee maam Mor Anta Sali dañuy wër. waaw léegi saa ci loolu xam nga man dama bëggoon mu dugg ci benn ci tuuti rek tuuti ñu doo a dugg ci politique bi tax ñu invité ko waaw parce que jigéen la moo tax ma bëgg ñu dugg foofu mais wujju hmm. wujju du deli mm-hmm. wujju du deli ku ci nekk li nga li nga xam rek waaw waaw man je partage pas un homme fiir kon yow doo am ñaareel mukk xawuma lan la yàlla di def ëllëg mais li weesu sama ginnaaw ba fu ma toog di wax ak yow. Oh. xamul rek dama ko xamul dama juddu sama papaam benn soxna donc euh, loolu laa xam daal xam nga ñoo xam ne dérangé wu leen oh. parce que dañ si juddu man dam ma juddu si famille monogame donc loolu rek laa xam donc euh, mënaguma imaginer ma ma ma séddoo góor peut-être mën na am plus tard peut-être. on sait jamais on jamais. mais yow moment où je vous parle daal wujju daal gënalu ma. wax kay da nga naan gënalu ma mais. waaw gënalu wax na ne gënalu ko xamul luy am suba xam li suba il faut jamais dire jamais. am suba mais xamul xamul luy wujju te gënalu ko. voilà voilà mosuma wujje xam nga xam nga xam nga man loolu tuuti rek ma wax la ci gàtt rek gis nga li mu wax ni femme boobu dafa dafa nekk en en état. xam nga jigéen dina nekk en état. Mhm. di bañ a jàkkaarloog bu nu këram. day mm-hmm. am da koy jaftee dañ koy baale ko du la bëgg a gis te mosuma am xam nga bu ko fekkee ci moment boobu rek ndeysaan nga ñëw dóor si benn jëkkër ji ñëw dóor benn bal li mu gën a bañ par exemple ni koy takkal naa la wujj sax danaan kii day euh, nekk ci benn phase de folie mais daf ma yàq waaw yàlla daal xam nga rek yàlla ki mbiram nañ si wis ndox bu sedd rek waaye wàkk xale bu góor bi ñu ngi leen di ñu ngi leen di masawu metti na de mm-hmm. eh, ku mu nekkoon sa place xam ne metti wujju yàlla daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko santaane. dafa gën leneen. te ñun suñu jigéen ñi koo ci ni par exemple ku ciy julli nga ni ko yéeféer nga mu mel. te dañuy julli gëm nañu yàlla màggal yeeg gàmmu yeeg yeeg ziar yeeg yëpp muuru dem wane ni gëm nañu yàlla ak yëpp. mais bu desee lu dul wujju. waaw moom lañ koy bëgg a tekki ci lislaam teg ko neexul neexul. moom ni du ci bokk mais nag li mu wax aussi. waaw c'est déggable. waaw nee na xamuma ko on dit kenn xamul waaw jamais jamais. mais mais loolu dama bëgg. dina andi oustaz. waaw ñu waxtaan ci loolu. waaw ñu waxtaan ci loolu largement ci affaire wuutu parce que c'est très important. waaw parce que ay musulmans lañu. ñun nee nañu war nañu am ñeent jabar. waaw alors que boo demee Mauritanie si y a ça aussi. alors c'est des musulmans te xamuñu ko. Mm. nga dem Arabie Saoudite c'est des musulmans xamuñu ay ñaari ñetteel ba ñeenteel. donc am na loo xam daal war nañu ko wax ci histoire wuutu. ñu mën a comprendre ñun ñëpp jigéen ñi comprendre. waaw te nekk ci alxuraan. Ah, tax ma ne dañu am oustaz. mu gën ñu ko tojal ñu gën a comprendre. incha allah n'est-ce pas. waaw wujje nekkul ci alxuraan yàlla du yàlla digle. saa yaa ngi dugg fu sensible moo tax ma ne la oustaz dina ñëw ñu leeral ko. waaw waaw loolu la la wax. <laughs> Ah, n'est-ce pas waaw fi nga wax moo garaaw xam nga fi nga wax garaawul sax mais dama cee bàyyi xel. waaw parce que c'est vrai. foofu oustaz ñëw foofu kii ñëw. am na ay pays islamiques yoo xam ne ñoom xamuñu lan mooy. ay ay c'est des musulmans. waaw et c'est des musulmans. absolument ah oui. absolument ah oui. donc euh, Oustaz Modou Fall. l'africain est de nature polygame. waaw Afrique. d'habitude comme buur yi dañu doon am soxna yu bëri. waaw moo tax euh, daal sa ñoom maam ak yooyu. waaw. waaw doy na waar. donc soxna yu bëri waaw. man am naa chance juddu si famille monogame. waaw ñu xamee la nag ci politique ndax moo tax nga am tuur ndax politique nag defe naa ne yow walla yaanu woo ko danga koo ci góor gi Maajoor Juuf moo doon wax ku leen jox lekk leen naan leen waaye. nga duggee ci bañ gàcce gi liggéeyal liggéeyal te mu xew te mu xew. ah papam la. papam ah, la. waaw ah, waaw. moo tax ñu ko moom yàlla juuf rek la. maajoor baa ngi noonu. du dëgg maajoor bi après laa ko dugal si biir. waaw yaa ko dugal. waaw dama dem tribunal. ah waaw noonu lañ koy defee. léegi waaw lu ma ndee la soo demee tribunal da ngay dem audience demander ko après ñu déglu la. waaw lu tax nga dugal ci maajoor bi. Ah. parce que. béykat yi non non non non day la deux maajoor Diouf maanaam maajoor mooy sa mooy sa mooy sa papa. loolu kay. Euh, ah Ndéla est-ce que boo bëggoon tàqalu si sa. ba ba bu doon naari dañ ñaan Ndéla bint maajoor. wala Ibou xam nga wala Ndéla Juma Faye. Ndéla Juma Faye Juma Faye mooy sama yaay. mënoon ngaa jël Ndéla Juma Faye bi. parce que Juma Faye. waaw li nga wax dëgg la. waaw booba yaayam duggul ci politique siiwul paa bi paa bi siiw. ah di si rek transporté waale ko. si rek ah. ma ko wooyee. ñoom Kumba Gaw la ñoo ma ko wooye ah mu mu ah ñoo leen Ndéla Madior Diouf Ndéla Juma Faye. waaw gaa yi nag Ndéla Madior Diouf la ñu kii la ñuy téye. xam nga wooy boobu. waaw waaw wooy boobu la woon waaw. maa bañ maa bañ politique. Ndéla politique. ñu xamee ko politique. waaw ah. Ndéla nga amoon fi parti. amoon wala mouvement am. parti am. maay trois centième. ok parti du Sénégal. d'accord bu tudd. Hmm. waaw réconciliation nationale. pour l'unité africaine. mi nga am ba léegi nekk deuxième femme. politique fii Sénégal. après kan bu créé après Mariam Wanli. waaw bu créé parti politique. voilà mi nga am ba léegi. waaw mi nga am ba léegi. waaw ok ci la ñu ñëw léegi. mais man ba muy def a créé parti bi. Hmm. ñu bëri leen doon wax naan. président Macky Sall ne ci ginnaaw kii président ko financé wala. non maa ngi créé sama parti en waaw mais boobu APR sa juddoo mais histoire gu mujj gi moom dégg nga fi loolu yow. waaw bu waaw moom lay dégg ba ba démb sax moom lay dégg. waaw Ndéla yow léegi lan la danga ne woon da demoon nga jëlee ay fiche ne da ngaa bëgg nekk président dangay dem ñu signé la ci ci parrainage bi. n'est-ce pas ñu jékki-jékki ñu ne Ndéla déedéet nekkatu léegi président dem na jàppale ji euh, Madické Niang. moom waaw man daal demoon naa jëli sama sama dossier yi. comme ñëpp waaw wax ñu lan moo tax nga génn ci loolu ba pare. léegi y' a 15 jours si ginnaaw après mi réflexion. kii kan la nii. ma ne su fekkee dañoo bëgg. moom ma di la dinañ ci ñëw Ablaye lan moo tax. nekkul projet ñu loolu de soxla nañ waaw kay donc daal 15 mhm. jours si ginnaaw euh, ma jël décision. retirer sama candidature. pourquoi pas pour dem tëddi nelaw. mais pour bokk ci coalition bu am doole buy daan. lan la problème mu moyen nga amul walla la. kay man bëgg naa xam raison yi tax mu ne bokk xam nga voilà léegi nag loolu dangeen ngeen may may rek may expliquer. ñëwal ñëwal doxalal ci moom. kenn kii di toog yaakaar yaakaarloog yéen de ku ko jox xam ne ne kii namul dara. am déet. dëgg la ah loolu la wax. dëgg la dara. namul dara mooy lan pale bi daal namul dara mooy lan. kii toog yaakaarloog yéen. waaw ku ko gis xam ne namul dara kon. du ci lan namul dara ci lan. daal li muy non moyen personnel bu ngay sol yére ay ay ay ay cuub teg greffage defar sa kanam lekk sa kër. fay sa courant lu bokkul ak moyen booy demee ci langue politique. c'est excessivement cher. waaw kii toog ak moom yàlla na ko yàlla yokk. si première yi nga xam ne si histoire du Sénégal moom donc. moo joxe 20 millions de caution 2012 te di ko kenn du wax de yow rek la ñuy déglu. campagne ba jeex am si 8107 voix te kenn yëkkatiwul 1000 francs jox ko. ki ah, toog waaw koo koy Ndella Madior. kon namul dara 20 millions lay wax de. kon namul dara ma ne. waxi 20 millions amul si histoire Sénégal. waaw 20 millions rek nga ma wax 20 millions kese ma wax. Abdoulaye Wade bu muy dem 3 millions la joxe. waaw mais 20 millions rek bu muy bëgg a nekk président de la république. deux mille waaw trois millions la joxe caution waaw yéen ngeen ñëw ñu yokk ko vingt millions caution ci histoire u Sénégal man dong maa si jigéen bu joxe vingt millions caution waa léegi Cheikh Ndiaye da ngeen ma koy nangul. waaw nangul nañ la ko nangul leen waaw nangul nañ la ko Cheikh Ndiaye. waaw Cheikh Ndiaye dama ni ko. waaw waxuñu problème mu moyens yi moom bu mu yore boppam. waaw parce que fii wax dëgg yàlla. waaw ñiy ñiy tëbb suuf di mëq sax. waaw namuñu dara. waaw adduna dëkk bi ah, dafa makki. waaw naam adduna moo demee dafa makki. fii de waaw waaw xaaral maa ngi ñëw. maa ngi ñëw dëkk bi dafa makki dama ni. campagne présidentielle ñi fi nam ma dara ak bëri Sénégal. c'est très coûteux. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. dafa metti waaw c'est beaucoup de millions. waaw waaw campagne yi moyen la moom. xam nga li ma la wax mais loolu dama ne denc na ko denc ko. man xamuma dama ne ko est-ce que du est-ce que question. est-ce que du moyen yi nga xalaat ni moo diis. waaw na ne ma moyens yi moo wala moyens yi diisul rek. parce que kenn damay poser candidature ba ci yàgg. mun na poser déglu ma déglu ma. réfléchir naa maa man lu ma dugg. waaw ma neexee miiraasam bopp. waaw tabax naa fi kër yoo xam ne su ma neexoon su ma ko buggee wécce ko am say milliards. waaw dégg nga wax ji. waaw après da koy ñàkk. miiras kay jeexal la wax. après xam nga da ngay da ngay ñàkk kër yeeg xaalis bi. soo bëgg rek ko déglu. ah wax dëgg yàlla dañ ko déglu. mais dafay histoire moo ne na boo histoire ak kay damay histoire ak moom de dama ko topp parce que moom dañ waxtaan xam nga dama bëgg man parce que dañ laa namm te waxtaanam dafa neex mais muy wax naan ma lii rek di di naan ma ay namoon di ma laaj ci ay sër newal garaawul léegi xam nga lu ma bëgg léegi man waaw kay ñu déglu ko ba mu pare waaw moom it mu déglu waaw waaw jeex na élection yi ñu jëm dafa nekk élection yu stratégique ah waaw waaw xam nga Sénégal léegi dafa riche mhm. am pétrole am gaz am ressource minière mhm. dootul Sénégal te da ko mos a am sax dañ ko doog a feeñal nii rek mhm. kon élection yi ñuy jëm dañu ñun dañoo dépassé participer ci élection rek pour participer. Mm-hmm. gis nga sooy campagne. Mm-hmm. wala sooy sooy créer parti. d'habitude da ngay gis nga Kouthia démb dafa présenté wu. Kouthia joxe na question. waaw yooyu yëpp leer na. comme kan nga mm-hmm. loolu day tax nga gën a. allez Kouthia. day tax nga gën a fës politiquement ay stratégie la léegi ma dama dépassé stade stratégie pour ñu xam la politiquement. dès la Madior Diouf foo munti dem si àddina bi te sénégalais nekk fa soo laajtee ana kan mooy la xam nañ ko. dëgg loolu dëgg la. ça a coûté très cher dama loolu dama dama fay dama fay xaalis weex tal pour jaayi turu Ndella Madior Diouf dépasse naa stade boobu. très bien loolu xam nañu. kon léegi su may dem élection. damay dugg foo xam ne damay am chance gagné. mais yow boo demalee sa bopp xam nga ni doo gagné. c'est pas un problème su ma demalee sa bopp jaar jaar la. politique jaar-jaar la c'est un parcours yàkkamtiwu ma. Mhm. j'ai 52 mhm. ans. mooy date limite. des na macha allah d'accord. Mhm. gisuma fi fi jar daw bay. daanu waaw mais ans yow di ko am ñu lay jox suñu. ndànk ndànk rek may na dam yow yow tamit yow tamit. exemple rek la wax xanaa bëgguloo ma wax. Ah, dootuma wax sax dootuma wax. noppi nag day noppi rek bàyyi ma daal. loolu la bëgg. Facebook boo daanee rek ñu ñëw boo daanee wax. <laughs> Mm-hmm. acca léegi nag maintenant. il fallait que ma choisir. coalition bu am doole. boo xam ne su ma fay dugg di daal. parce que man ku ma ku ma àndal rek yaay yaay gagné. kon coalition bu muy mettre Madické Niang pas Apulaay. ana Apulaay image. Ndeela. waaw damaa image ma waaw. ñëw na ci sunu ngoonal bi fii. ni moom moom àndut ak waaw bu numéro 2014 bi. waaw ni moom du ànd ak kenn. dina nekk président. moom surtout buur la. waaw day demal boppam gëm boppam. waaw. dama koy seetaan leetu Facebook am moom. waaw moom lu ma gis ci moom dama koy seetaan. waaw bi mag la koy wax de boobu ak Macky Sall la ñu àndaloon. waaw parce que xam nga lu tax ma koy seetaan. parce que xam nga lu tax ma moom ay waxam dafa dafa dafa précis. dafa day wax di ko teg di ko kale. waaw waaw. toog nga fi nga ni koo àndal day gañe ma àndal day gañ ah bu nu demee ba watee ca ngoon sama xel mi ci yow lay dem te dama lay woo léegi man Pao di nga jël sa téléphone <laughs> eh, di nga jël sa xam naa fa mu dëkk bañ a jël téléphone xam naa ko may ku ma àndal yaay daal sama bëree daal waaw léegi Madické Niang waaw léegi waaw kay waaw waaw aja Cheikh ñëwal ci loolu Madické Niang waaw bokk ñëwal rek ñëwal ñëwal bu ma ñëw dama la koy may kon Madické Niang man Ndéla ñëwal Ndéla waaw Madické Niang wax ma lan nga gis waaw ci Madické Niang mu nga xam ni waaw mi ngi woon PDS PDS ak problème yi fa am yëpp mbooloo mi ñii dem nañ ci Madické ñii dem nañ ci ñeneen ñii dem nañ ci ñeneen. waaw Madické problème ak Ablaye Wade. Madické mi doog a fël créé moom it nga ne Madické dafay gagné lan nga gis ci Madické lan moo la motiver à ce que. yow ba fi Macky Sall dem ci Madické. waaw waaw waaw boo xeeñ neex lu tax jonjoo wala ñu xeeñ parfois ngay dem Madické nag xanaa na ah wala. nee na ñëwal léegi est-ce que may bu ngeen ma may ma tontu. parce que waaw waaw kenn dootul wax. da ngeen bëgg a taxañ. jërëjëf taxawuñu la. ñëwal. bi ma jëlee décision retirer sama candidature lu tax ma def ko c'est pour des raisons d'économie. Hmm. pas pour man de pour trésor Sénégal benn candidat dafay cher 150 millions ne serait-ce que par affiche pour les affiches de par candidat moom la état di dépenser gis nga 30 millions yi ñuy déposer caution. Hmm. état dina déposer dina dina dina dépenser beaucoup plus. cent cinquante cent vingt millions la woon su ñun. Mhm. en 2012. Mhm. léegi 2018 gën mhm. minimum cinquante millions la état bi di dépensé si affiche. gis nga élection législative yi passé 2017 il y par 100 50 millions loolu ay milliards la. yàq la yàq xaalis la ku nekk bu ku nekk ne maam mën man leen tey nag ma xalal leen yoon bi bu gàcce ruusuma dama créé déclic na am ñu sacrifié wu man dama sacrifié wu ndeysaan na am ñu sacrifié wu su ko defee ñii ne dañuy dem par ñu mën a reculer dootuñu hmm. amati gàcce pour reculer hmm. xam nga dama ko def rek teguñu si hmm. man ma maa xàll yoon bi man ma leen jiitu woon defoon sama vingt millions jiitu loon ci langue ma maa ganaan reculer waaw xam naa fi nga waxee bu leen leen bu leen bu leen jomm reculer bu leen rusa reculer bu leen am na nag ñu reculer parce que dañoo xam ne signature yi waaw mënuñ koo am signature yi mooy piège bi ci élection bi waaw signature boo amul du. waaw da ngay dem ci a dellu kenn maanaam bu gàtt bi moo gën bu gudd bi. dëgg la léegi nag pour euh, signature bi. Hmm. xam nga paxe parrainage bi ñun ñëpp dañ ko contre woon. waaw te dañ ko contre ba léegi. naam parce que jàll nañ ko përëx përëxalee. naam moo fi teg. waaw hmm. parce que Bokk Yaakaar su amee majorité assemblée nationale xam nga da ko fokkati. dëgg la ndax hmm. si élection bi parce que loolu ñëpp xam nañ ko te du ma du du ma ko du ma ko taay di ko wax parce que man fu dëgg nekk rek lay nekk. loo mënti àndal. Mm-hmm. fu dëgg nekk rek si da nga gàcce. Mm-hmm. ndax yare nañ ma benn façon yar boo boo xam ne xaalis du tax ma def loo xam ne. du yow du du du du du la vérité quoi man damay nekk foo xam dama nekk à l'aise. donc ah oui. <laughs> damay nekk foo xam damay nekk à l'aise ba su may wax nga xam ne kii dafa dëgg lu muy wax dafa ko dëgg. Mm-hmm. waaw doo ma tricher. su may wax Aly Ngouille Ndiaye génneel carte yi dama ko gëm tey su ma àndoon ak ñoom Macky Sall dama leen di ne génne leen carte yi génne leen carte yi respecté leen les règles du jeu ku gagné ñu xam ne yow yaa gagné mm-hmm. fu dëgg rek dëgg daf may bàyyi fu ne mm-hmm. da ngeen wax ji mm-hmm. kon parrainage bi c'est pas un problème dinaa dalal xelu ñëpp dalal ñi ko ragal y a 602 collectivités locales au Sénégal. Mm-hmm. lan la ñu laaj fu nekk 100 pour yombale leen ko ban candidat ban parti politique moo mënul mobiliser 100 personnes. Mm-hmm. par collectivité locale par collectivité locale. 100 mm-hmm. mooy 10 fois 100 10 fois di waaw 10. nga saam ko. 10 10 ba 10 fois. mooy 100. nga def ko si collectivité locale yi. mooy commune commune yi. 602 la. am nga sa parrainage. c'est pas ça le problème ah. non non no c'est pas ça le problème gars yi ñoo ko ragal nii rek mais après dafa tax ñu jege ñu jege askan bi. léegi le choix de Madické. le choix de Madické le problème mooy ji tëbb ma tëbb rek. choisir choisir Madické. man dañ ma toog sama kër damaa toog ba sama kër ñu fekk si ma. bi ma fekk see maam ku góor ku baax mu ñëw ne ma dama bëgg nga jàppale Abdoul mbay man na ko pourtant de ki nga bëgg ma jàppale de soxnaam ñoo bokkoon classe primaire. Mhm. on s'est revu mun nañu wax quarante ans après. ay mhm. retrouvailles émouvantes. mais Abdoul Mbaye. Mhm. bëgg naa ko jàppale. mais maa ko ëppale woon voix si élection législative bi moo la war a jàppale. donc. <laughs> yow yaa appelé woon Abdou Mbaye. Ah, waaw te yënguwuma sax. te yënguwuma. attention lu yënguwuma. législative yi yënguwuma. parce que c'était très mal préparé. Ah, j'ai pas battu campagne correctement et puis j'étais pas dans une bonne coalition. voilà yënguwuma sax. ban coalition la woon. coalition neneen. waaw ah, boobu baaxul ndax boobu baaxul woon voilà baaxul woon ndeysaan. waaw avant boobu ñu ngi woon si Manko. far malheureusement manko teel a tas. <laughs> moom it manko wuñu woon. manko wuñu woon. <laughs> xam nga loolu manko ba moo yàq. yow bi nga bokk nii lan la moom mi ngoon fi neex ci Abdou Mbaw. bin bin benn rek xanaa bëgg leen nag ngondal bi neex na. kay yaa ngi toj Sénégal fi mu nekk nii. yéen de bëgg leen ngondal bi neex na. Abdou Mbaye léegi waaw Abdou Mbaye non te mu nangu ko de te mu nangu ko wax dëgg yàlla. Mhm. nekk ku baax. Mhm. et puis euh, du ma ne du ma mos a liggéey moom parce que au deuxième tour les gens vont se retrouver deuxième tour daa am. kon yow daa yaay yàlla. ma ne la. <laughs> yàlla bu fekkee yàlla deuxième tour kon de sama mbëri jànd dès le premier tour. président Macky Sall da leen a gagné waaw. président Macky Sall nee na deuxième ah. tour. du am ma ne kon sama Macky Sall gagné na leen ba pare. ma ne ah. waxal lu la neex rek. waaw bàyyi ma ma continuer. ah waaw yow nag ma promettoon dara. président Macky Sall de mooy gagné élection yi da nga waxagul ak kii bi Madické. mais bàyyi leen ma wax. Ah, parce que ñëwal damay damay damay damay question yëpp li ñu wax ci question yëpp. waaw waaw ñëwal ñëwal ñëwal waaw léegi dootuma wax. bu kenn wax gan dañ koy teral. teral nañ la. dana ko may mu naan waay. gisaguma fi sa boisson yeeg ndox. yëpp a ngi ñëw ñëw de. kër gi de gent gi mu gent. <laughs> xanaa nga dimbali ñu rek. borom kër gi ba mu jógee Espagne daa yàgg. ba mu ñëwee ba léegi. doxalal rek jeex na. naa yow boo jëlee réew mi moom kër gi changé. boo jëlee réew mi ñun dañ koy madikeel di. xanaa dëkk bi daa makki. Ah, ñun dañ koy madikeel. Eh, dañ koy madikeel wax naa la fii kenn du fi wax. Ah, waaw fii kenn du fi tudd turu kenn. dañ koy madikeel. waaw léegi waaw léegi madikeel waaw. waaw. waaw bu ma jógee si Abdoul Mbaye ndeysaan mhm. mu am kenn benn xarit mu dégg ko nag Abdou Diouf benn chef de parti mu ne ma yii yaa yow yaa ñu taaloon janvier février ne Khalifa Sall su génnulee Karim Wade génn Idrissa Seck may fal ma ne ko maa ko waxoon mu ne ma du la bàyyi nga dem si Abdoul Mbaye dem lay yóbbu si insisté nag ah ma dem seeti Idrissa Seck donc waxtaan ndeysaan ñoom ñëpp ñëpp di nga baax mm-hmm. les hommes politiques man aw ma sens interdit Sénégal. ndeysaan ñoom ñëpp sama xarit lañu. nga dem seet ñoom ñëpp ay xarit lañu sax. nga dem édi ñoom ñëpp sama xarit lañu ñoom ñëpp ay xarit lañu toog waxtaan. waaw waxtaan bu baax. waaye doyu la bu bëgg ma jàppale ko. ndeysaan ma ne ko waaw dinaa ci réfléchir ah ma ñibbi sama kër. réfléchir. état bi woote. état bi mu wootee ah. ndeysaan. Uh-huh. yan ngeen xaar ba tey doog maa mais boobu danga wax ni euh, euh, euh, retiré wu nga. ci lañ lay soog a woo damaa retiré ba pare. ba def déclaration bi ñu lay soog a ah, seet si. waaw damaa retiré ba pare xam seet si ko seet si koog dama retiré dama dama dama xàllal yoon bi. après état ñëw dama retiré. waaw pour ñi am complexe dellu ginnaaw daf ko. waaw après bi état ñëwee. léegi après Abdoul Mbaye ñëw ñu yóbbu ma si Idrissa Seck. état woote. état kan moo woote ci état. état woote. Cheikh état ah xarit la sama xarit la sama xarit la ma Aliou Ndiaye moo la woo sama xarit lañu. wax dëgg yàlla. Oh, oh, mu la wax moom la woowee. non loolu duñ ko du jëm kaw. Ah. loolu rek euh, dafa bëgg ngeen liggéey réew mi. nga ne ko yaa lànk. non man fi ñu ma woo ma wuyu kii la kenn rek laa xam ne su ma wooyee du ma ko wuyu muy Macky Sall fenn fu ma toll fu ma toll nii nii nii nii hmm. Macky Sall su ma joxoon un milliard suba du ma ko wuyu un milliard bëri na de yéen da yoo xamu leen xam nga wax dëgg xam nga lu waaw su ma joxoon su la woon ñu la fekk ma pale ba doo dem dix du ma du ma la woon la fekk ma pale ñu waxtaan doo dem pale dix milliards du ma kuyu non waxuma waxuma ci xaalis bi mais fekk ma pale doo ko fa fekk non d'accord dem wuyu ji président ku mu woo nga wuyu waaw waaw waaw pour ñu ànd liggéey la la wax waaw kay ok pour ànd liggéey moom waaw loolu de weesu na nga loolu la def man yéen da ngeen bëgg a yàq film bi nag. ah yow kat da ngay wax ak ñun bëri bëgg ñun fu neex. day dem si Madické bàyyi ñu fa ñëwaat si nag demal demal noppi nañu. ñu ngi si Madické ba tey nag. noppi nañu da film bi. da sa Madické da ngeen di nag ma léebal leen. kenn waxul ñëwal demal si Madické. ñëwal. voilà donc léegi état bi ma wooyee ma leen di déglu ñoom nag dañu xaw a yéex. am ñoom dañu xaw a yéex ñoom dañoo jot si yëf yi foog nga ne ku ñu rek da ngay toog rek di leen di xaar xam nga mois de novembre. mois de novembre bi c' est le dernier mois stratégique. waay waaw décembre janvier février. non loo mhm. fi deful mois de novembre bi doo doo ko mën mhm. parce que le, on fait appel toog rek di xaar ay audience avec le président. mais mhm. non actuellement on à un de parti. c'est le chef de parti qui veut qu'on l'aide, pas le président de la République. Mmh. Donc moi je suis chef de parti. Okay. Donc Macky Sall en tant que chef de parti su yéexee ma ba ko fi am déet. non yow wax nga ni doo ko jàppale déjà kon kay moom. non dafa am lu ko waral. ah non non non. dafa am lu ko waral mais àndoon ngeen sax yéen da nga ba nga ñaan ko yow waaye kii kii waaye jox waa Ndéla waaw kay waaye yow Ndéla yow yaa fi woon Macky Sall mooy jëkkëru Sénégal jigéenu Sénégal yëpp. moo ne fi Macky Sall mooy le mari idéal mooy jëkkëru jigéenu Sénégalais yëpp c' est le de la nation c' est le nanga ba bañ mbamboon ko fi mbamb mu riir mu riir 2015 la woon dalaa may baat yow <laughs> daa ba ak bañ ko ko tooñ moo fi toogoon naan dañ maa tooñ dañ maa tooñ saa ma jox la secret li mu def hmm. day fase waate de jëkkër ji kenn du ko tooñ de moo fi génnoon naan dañ maa tooñ dañ maa tooñ li may tooñ. li may tooñ. mais dama la benn secret ak nga bëri histoire. maa bëgg wax la ko man ak yow dong. Ah. kenn du ko dégg man ak yow. waaw. sama jëkkër ji Canada la nekk ko. waaw. ah waaw. jëkkër ji da kaa tooñ mu fekk Canada fas ko man dama laa bëgg de. a ah, su Canada eh. bari sori na de. moom déggu ma ba déggoo ma wala dégg ma. <laughs> yow yow lingeer nga. <laughs> kenn du la yab. kenn du ma yab loolu moom dama cee ànd ak yow. Ah, kenn du ma yab nga génne bi yoon. lool moom dama cee ànd ak yow. loolu xanaa ko fas bu la kenn tooñ. kenn du ma yab. <laughs> kenn du may mooy ko fas sa jëkkër xalaat da ngay fas président. Ndiaye ma nga sama dikke nag. ah waaw waaw tey waaw waaw waaw waaw. ñun ngoon na nag nii la dañuy jékki-jékki rek génn. ba ñi ñi seetaan xaw a toj dee ñu duggaat ñu dikkaat. xam nga ñun ndeysaan moom dafa wax nee na Linguère nga machine reine du Sine ndeysaan. man tey su doon démb damay fal. dëgg la. tamit dëgg. les séeréer sont dignes. weddi lu ma la ko de. démb amuloon télé. ba ba ah, aduna changé na de. Ndéla <laughs> mais gis nga kii moi je suis une reine du Sine. on me traite comme une reine. wax naa ko ci introduction gis nga gis nga ñun. mais nag boo nekkoon président de la république réew mi réew mi dina neex trop. mais trop nañ ma mos rek. day nga laaj mais bien sûr. waaw waaw ñëwal moi je suis une reine. waaw on me traite comme une reine. oui. wax naa ko mais kii nañ toutes les femmes sont des reines. Ismaïla Lo. toutes les femmes sont des reines. Ah, Et puis dans tous les domaines. Ah, dans tous les domaines on doit nous traiter comme des reines dans la politique dans tout cër rek la laajte. Ah? cër. kon léegi cër boobu lañ la joxul fee moom la cër bi la ma dikke jox. cër cër rek la ñuy laajte gis nga ku ñu jox cër. Hmm. mais li tax ngay daw ma dikke ñaa mooy problème ma dikke lu yóbbu ci ma dikke. loo tax nga jël ko ma dikke. loo nga jël combat bi mu hmm. ma Seydou Seck. waaw waaw état yéen Macky Sall woote. waaw noonu la ma dikke woo waaw lu tax nga nga bàyyi. Madické nag mooy nag euh, mooy ndaanaan bi. daa gaaw dafa gaaw. dafa gaaw ci nii. gaaw nii. wala gaaw nan nii si lépp. Ah. dafa gaaw. ci wax de làmmiñ bi. xam nga état bi ñoom ñii dañoo yéex ñii dañoo ñii dañoo jot ci yëf yi ba pare. seen lépp yéex. waaw man de affaire bi man comprendre ma ko. seen lépp a yéex. ñun nag ñu fi bi xaar ba xëy déedéet wax la li mu bëgg a wax ci gaaw. waaw moom. dafa am parti. waaw. dafa am ay mbooloo yu ne ci ginnaawam. am ñu koy yaakaar. waaw tey képp ku koy woo. day waxtaan ak mbooloo mi. waaw mbooloo na ko boo demee wax fa lee. maanaam dañuy soxla nga mettre leen ci condition. ba pare promettre leen teg wóor que ne boo jëlee réew mi lii ak lii ak lii ak yooyu yëpp nag ñee danoo gaaw ci financièrement. gaaw ci benn parenthèse boo xam ne am ubbi nga ko léegi. mais maa koy tëj. tëj ko dama woon le président de la république. Hmm. c'est le mari de toutes les hmm. ko léegi. mais léegi ñëpp yuuxu sama kaw ma ne leen mais loolu waxu teraanga la daal mhm. le président de la république c'est le père de la nation c'est le c'est le mari de toutes les femmes sénégalaises su nekkee maam la muy maamu ñëpp mhm. su nekkee mag muy magu ñëpp mhm. loolu waxu teraanga la loolu warul tax ñu ñu ñu ñu mbabbandee la et puis voilà quoi loolu fermel teg nañu parenthèse boobu waaw waaw parce que ba dina di tukki man je je vais courir derrière personne. mais bi ngay wax jamono jooju da ngeen doon sëy wax. mu ko si àddina. ah boobu àndoo woon bu soo ànd ak ñoom deuxième tour bële. non boobu alliance bi daal mooy alliance daal mooy alliance ne euh, mosuñu ko correctement. waaw dañ ko fanaan finalisé wul. moom daal moom daal dafa bëgg moom. waaw ku ko jox cëram. cër à juste titre. surtout dëgg la ren la. waaw da nga koy traité tey njottu ni dañ la ko xañ fële kii daf la ko jox. xam nga naka la ma ko joxe waaw. déglu leen ma nag léegi. lu tax ma choisi Madické. ñëwal loolu rek lañ bëgg a xaar. waaw waaw. j'ai choisi Madické parce que c'est le candidat de la rupture et de la réconciliation. Mhm. dinaa ko toj léegi. selon vous dinaa ko toj boobu laay mujjee toj. Mhm. rupture ak réconciliation. moom laay mujjee toj. Mhm. mais c'est le candidat qui honore les femmes. Madické Niang. dafa ne yàlla su ko dénkee réew mi te incha dina ko ko dénk. waaw. ko dénkee day def gouvernement paritaire xam nga lan mooy gouvernement paritaire. wax ñu. comme parité bi nekk assemblée nationale rek. waaw autant de femmes que d'hommes dans un gouvernement. Mm-hmm. si c'est 30 ministres il y a 15 femmes. 15 hommes 15 hommes. le gouvernement de Macky Sall c'est un gouvernement boo xam ne déglu le gouvernement de Macky dafa créer des femmes cadres frustrées au Sénégal ñaata jigéen ñoo fi qualifié fii Sénégal te kenn faalewu leen te ñu nekk ay cadre international mais mais président Ablaye Wade lii ma dikkee ñaa waxoon président Ablaye Wade mosoon na ko fi wax de. mais ne un gouvernement paritaire déglu ma rek tey ma dikkee nit c'est un homme de parole il va le faire. ah gouvernement man loolu c'était l'élément déterminant. baax na c'était l'élément déterminant. pour choisir Madické parce que moom kese. moo ma wax que dinaa def gouvernement paritaire te du wax du waxu campagne quoi. Mm-hmm. la a profité lancer lancer appel à toutes les femmes sénégalaises surtout les femmes cadres qui sont frustrées et oubliées. Mm. de venir soutenir le président Madické Niang. rupture. ñëpp jigéen ñëpp nag buntu bi nag mi ngi fii si Ndella ñu dagaloo ñun ñëpp jàppale. Ah, yow lañ jiital ci jigéen ñi. waaw waaw jigéenu jigéenu madame Faye Sall alal dootu madame Faye Sall yi foo leen bàyyi ñoom xam nga jigéen comme nga moom. moom dafay kaasal kodom ci ma ci sax la ma dikkee ñaar li mu wax. c'est très bien. waaw c'est bien. bu ko mais madame fay Sall it am na jigéen ñoo xam ni. yeewuluñu mooñoluñu tayeluñu yàkkaluñu suuluñu lu ku dul moom parce que dañ ni moom. c' est la femme idéale moom moom mooy jigéenu Sénégal moom. man comprendre ma lu tax nga wax wax boobu. loolu loo ci xalaat. dama comprendre sa lu tax wax boobu dugg. suñu waxtaan bi xam nga lu tax lu tax ma wax ko. xam nga yow li tax nga bëgg. jigéen a tax nga bëgg. non non non lu tax ma bëgg. place bi ngeen bëgg a jox place bi ngeen bëgg a jox jigéen ñi si gouvernement bi moo tax ma bëgg. waaw en tant que jigéen rek laa wax. en tant que femme est que xam nga noonu nga ci bëggee am na jigéen ñu ñu mel ni yow ñi nga xam ne ñoom tamit Marième Faye Sall rek lañu lañu sujet fu mu nekk nii li ngay wax. hors sujet wu ma non woo jigéen ñëpp. maa ni leen Ndella Madior buntu baa ngi nii. pour ñu ñëw ñu am na ñoo waaye yeneen jigéen ya nekk côté bële. ci sa jigéen yooyu sax am na ñoo xam dem. waaw ña sujet ah, ah, Macky Sall n'est pas président de la République. C'est Macky Sall ah! qui est président de la République. na ci doole de. quand on parle de gouvernement. am na ci doole de. sama yoon ne aussi. laag li si man sama yoon mooy. un candidat. waaw qui accepte d'imposer un gouvernement paritaire. waaw waaw léegi loolu. ba ma waxee waxu maanaam Faye Sall. ci la perturbé wu moom. non non dama dama ne hors sujet. hors sujet wu ma. yow da ngay wooteel jigéen ñi am na jigéen ñoo xam ne liggéeyaluñ ku dul tamit. mais du Marème Faye affaire bi. Marème Faye Sall carte boobu gis nga seen carte boobu Marème Faye Sall rek lañ koy sànni ñoom. yow daa ko sujet kii moo ko sujet am na jigéen ñoo xam ne fii ci Sénégal. yeewu lu ñu lu dul Marième Faye Sall rek la ñuy xaar. yow hors sujet. hors sujet wu ma. da nga hors sujet. ah yow mel bu booboo dégg nga hors sujet. Ah, da ngay hors sujet. ku sànni ku sànni Macky Massa. mais non da ngay hors sujet non non non. yaa ngi hors sujet. rupture d'accord waaw léegi waaw léegi li nga bëggul moom bëggoo ko. kon hors sujet. non hors sujet. le gouvernement non non gouvernement paritaire comme France nu mu def. waaw waaw autant de femmes. waaw waaw que de euh, que d'hommes. loolu mooy gouvernement paritaire. waaw parité bi nga xam ne def nañ ko à l' assemblée nationale. ak si mairie yi xam nga mairie yi tamit dañ ko appliqué si mairie yi. parce que y' a une parité nominative. une parité élective. waaw ok parité élective moo am Sénégal. parité nominative amagul ma dikkee nag promet na daf parité nominative. waaw loolu man la am na ko ko nomee nga ne ma dikkee waaw xaaral rek nga ne ma ma dikkee homme de parole la. waaw alhamdulilahi rabbil man Cheikhou kontaan ci loolu tax nga kii xam nga loolu fekk si naa la. kontaan naa parce que tamit jigéen mooy kennoo àdduna. waaw waaye tamit dama ne la loolu bàyyi leen ci xel. xam nga loolu li ma wax nii. bàyyi leen ci xel de. jar naa bàyyi xel. bu baax. waaw li nga wax nii dafa mu sens sax. Ah. ah bëggoo parce que bëggoo mu am sens. amul sens waaw parce que arrangé wu. waaw Ndiaye temps baa ngi dem waaw ah, baa ngi dem signalé nañu ko. waaw waaw waaw xam nga maa la invité boo ma nee amul sens damay d'accord. amul sens au sujet au sujet. Ah. Ah, on parle de gouvernement paritaire. waaw des femmes cadres. waaw waaw. am na ay femmes cadres yi nga def ni ñoo aju ñoo femmes cadres yooyu ña nga foofu ma la wax de. ok waaw Ndiaye alaaji waaw. Ndéla. waaw Ndéla tur Marème Beka xaw naa yëngal. léegi waaw parce que au sujet. waaw garaawul garaawul moom def ne baax na na dafa moo koy kii waaw daf ne yi waaw hmm. mais gars yi nañ carte yi mais nit ñee ko jëriwul waaw carte yaa ngi Ndiaye am na carte yoo xam ne waaw Sénégal Ndiaye ngee Diop ngee li Sénégal la mbay ñu sant Diop Diaw Diouf fii daal Guèye laa fi gisul Guèye kon nit ñi carte yi génn na nañ jëli carte yi ah, man sa bos génn na mais nañu dem jëli seen carte yi même man sax waaw ci moom mi ngi lancé message bu am solo waaw nañu dem jëli carte yi. léegi ñi nga xam ne euh, jot nañoo inscrire. bu ñu tayal nañu dem jëli seen carte fi ñu inscrire woon su fekkee ne nañu nekku fa gouvernement bi nag daje bi na na na fexe ba génn. ba bañ a jaxase carte yi quoi. parce que loolu la ñuy di jëli carte yi. kon nga lu am solo ça c'est la responsabilité c'est très important. na solo tuuti. waaw que carte yi génn na. nañ sensibiliser ñin ñi aussi. waaw ah, nañ def ay campagne de sensibilisation. Mhm. waaw ah ñin ñi xam ne carte yi génn bërëb sangam la nekk. waaw ku ñëpp dem jëli seen jëli seen carte jëli seen i carte. parce pour pare ne il faut nga am carte. balaa maa ñëw ci lii ah waaw dama ko bëggoon laa benn. waaw car macha allah ñun naataable wuñu Sénégal ak àdduna mi ngay wax naataable wuñu sam sam xel mu màcc. jëm ci lu doxal luy doxal réew. bu ñu sunu yaakaar na mbasul. soxna si lan nga defe ni ku la ko jox ci réew mi din nga ko doxal ba ba réew mi yëpp taxaw. xanaa ministère de la doxal. non ministère moi je suis médecin de formation. comme santé donc ministère de la santé. ak ban télécommunication ah éducation communication communication donc suñu domaine la. tourisme. tourisme waaw wër àdduna. voilà parce que l'environnement. waaw dafa am solo. tourisme à part ay contact il y a l'environnement. il y a la formation professionnelle. Mm-hmm. ñeent tam mm-hmm. bokk. la le, le domaine de la formation professionnelle et la création d'emploi ñoo ànd. Mm-hmm. d'accord. voilà donc euh, juróomi mat na wala matu. mat na ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur nag bëggoo. non je suis pas flic. Euh, tu n'as pas mais man mais am na lu ma bëgg laajte je n'infiltre pas am na lu ma bëgg a laajte man du ma infiltrer. bëggoo premier ministre du ma yónn du ma infiltrer. man de am na ma bëgg a laajte de. bëggoo ministre premier ministre bëggoo. Euh, ça dépend xam nga waaw kay. ci loolu Ndéla balaa ñoo ñëw ci lii. affaire bi xeex rek la de. man dama bëgg Ndéla parce que parti bi moo tudd. RNUA. ok moo tudd. réconciliation nationale pour l'unité africaine RNUA. unité africaine d'accord mais man dama bëggoon xam ndee la yi ñaata militant parce que man mosuma dégg moom ndee def na congrès mosuma dégg ndee la nag kii mooy euh, porte parole parti ndee la ah donc loolu euh, lan nga ma ci mën a expliquer par parce que yow daf mel yaay sa porte parole bopp yow yaa defar sa bopp sa congrès. Mm. mooy yaa def sa réunion bopp. non non non non non pàcc bi am na ay nit. waaw mais egg benn stade boo xam ne. Mhm. soo feeñalee ñëpp ñu nekk sa ginnaaw. Mhm. dañ di jënd. Ndéla <laughs> euh, est-ce que soo déglu ma rek bàyyi ma daaneel. est leen ay tàngal nax leen dem ñibbi. bàyyi ma daaneel yow bàyyi ma daaneel. waaw ñëw daaneel ah, yaa ñuy tooñ te tat. ma tooñ nag. <laughs> bu jënd da daa xew. seenu gis nga bi ma nekkee bi ma bi ma kiyee nekkee ndeysaan. ci Apulaay. bi ma déclaré sama candidature. ñi nekk sama ginnaaw. dañ maa woon. non. ñàkk leen bañ a feeñal sax. moo tax affaire ba sedd. ëpp naa feeñal. ëpp naa feeñal bul feeñal. ñàkk leen a feeñal yéen fii de fii moo tax affaire ba sedd. Mm. ndax man bu may utal sama parrainage bopp ñoom ñu ngi utal parrainage Macky Sall ci suuf. barke eh. yàlla waaw. dégg nga depuis combien de nga ànd ak ñoom. loolu nag dina bari ci campagne yi 2005 gars yi dañuy ànd ak yow di la war ndeysaan gor la. ndeysaan nga léegi yëpp. ñàkk leen ba nga fengal gis nga am ñoo xam ne. Hmm. comme li nga wax léegi. di nga am conseil en communication di nga am numéro 2 di nga am numéro euh, le truc des cadres mais gars yi dañ leen di jënd dañ leen di invité sëgam rajo rek ngay yore ñu invité la. ah ñu invité la invité la infiltré la ah gis ngeen li leen def. def ñu dara nag ñu dara wax loolu. def ñu ñu def ñu fi jógee duñ croix de. ñun du taw ñu ko béré borom émission ah, intellectuelle la bonjour ma dem ma dem dem Sénégal dañoo seetaan yooyu Sénégal lii la ñuy seetaan ah ñu ñu. waaw nee na waaw nga ni ñu dem. léegi man sa billahi léegi man loolu stratégie la bata na bata ko sere ah donc ah, man wéetuma de sama wax ah. maa ko waxoon. jéego ma sa wéet. kañ nga ñuy recevoir yow. saa yoon lañ bëggee ma dalal leen. bon Cheikh Ndiaye. ñëw ci euh, Touba Gaz tuuti balaa ñëw de. waaw dañuy ñëw fii bu ñu ko ñëwaat. Touba Gaz Touba Gaz après ñu ñëw. waaw euh, xam naa war ngaa kontaan ci ñoom. ndax yow da gëm réew mi di Sénégal. Mhm. ñoom doomu réew mi lañu. Mhm. te doomu réew mi ñoo fay liggéey. Mhm. Apulaay soo ma mën a andil Touba gaz nga andil ma Touba gaz. Mhm. ñu certifié leen ISO. Mhm. maanaam norme yi nga xam ne moom la ñuy defaree gaz bitim réew. norme yooyu lay defaree fii Touba gaz fii ci réew mi fii. Mhm. doomu réew yi liggéey di ci faj seen soxla mu sakkan am sécurité wóor te vraiment vraiment kenn mënut ko sax sàcc lii. garanti waaw garanti. dañ waaw kenn mënul sàcc gaz. yëpp am na 9 kilo bi am na 3 kilo bi am na yëpp yëpp nga ci biir muy Touba ah. ñu mel noonu tamit. war ngeen leen a encouragé. ñu ngi war ngeen leen a jàppale. ñu ngi nii ah, waaw parce que parce que parce que doomu doomu réew mi la ñu. Mm-hmm. waaw waaw. bon léegi balaa loolu ñu ñëw ci euh, ci huile bii. Mm-hmm. waaw huile nag huile bu bees la bu tudd kenol. Mm-hmm. avec daraw waaw huile France la jógee. gis nga léeg-léeg nga dox ci dëkk bi. waaw gis ay oto yuy fumé. waaw ay moto ñuy fumé di def pollution. waaw huile bi da koy stoppé. kenal day dem ci moto. day dem ci oto. ah vidange ak yooyu. waaw yëpp dafa baax et sa moteur day gën a oyof. Ah. du diisal moteur bi surtout fii en Afrique nga xam ni moteur yi ak tàngaay beeg yooyo yi ak yi ci nekk yëpp. huile bi dafa jóg uniquement pour oyofol moteur ak pour stopper ay oto yuy fumé ak yooyu. saa mi ngi tudd doo ma jox doo ma jox adresse wu ñii. waaw adresse bii ñi ngi boo ñëwee ba rond point Yoff. luy dem ouest foire. waaw waaw ñoom ñoo nekk noonu ci Mon Prix. Mon Prix xam nga Mon Prix bi waaw. waaw mooy étage boobu nekk foofu ci ci ouest foire. am nañ numéro téléphone. mooy 77. waaw 964. waaw 47 99. loolu leer na nañ. leer na nañ 964. waaw 47. waaw 99. kennol huile kennol. kenn ñoom nag tamit dañuy gunge ci ngonal bi. ñoom nee nañ ñoom taxaw. ak ñoo bëri jom. waaw huile kennol la ngoog. waaw ndee la yaa ngeeg sa oto. waaw boo dem na ay oto. Ndiaye ay oto kay ay oto. waaw kii garmi la. moom nee na séeréer la. waaw siin la dëkk. mais fañin fañ fañ fañ. faw caa am na borom de. am na borom de. Ah, ah, boobu moom moom moom boobu moom si si séeréer yaa ko moom. moom du séeréer. tukkuleer yi moomu ñu ko yéen tamit. fañin fañ fañ moom fañin fañ fañ tawa caa d'ailleurs sama sama campagne wooyu campagne. Eh, bu ñu triché ah bu ko triché ah, faut loolu moom da nga ko triché moom moo ko. Macky Sall oh. loolu mooy lan fañin fañ fañ mooy lan. fañ na roogo. loo bañ bañ nit. waaw lu histoire bi histoire bi ma wax daal. waaw du tee loo bañ nit bañ nit suy taw. dina taw yàlla dina taw ci toolam ni muy tawee sa tool lay tawee mais man xam nga lu ma bëgg a xam nag. léegi président Macky Sall ci président boobu. waaw ci fañ fañ fañ fañ sa waa caaca. waaw lan moo la jotal ak fañ fañ fañ fañ sa waa caaca parce que. yow ah. yow président Macky Sall la tuddee woon ko ne Ndéla président moom fañ fañ fañ fañ moo ko moom président ko moom. Ndéla bul ko jël koo wax rek gañe. wax dëgg dafa tëj dëkk ko lan moo jaaxal ci président Macky Sall. moom du ci waxante de. nee na man daal xam naa du ma ci. bëgg bëri bañ bëri fu ma leen fekk daal yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf. ah sama mbërëy sama mbërëy daan. mbëru kan sama mbër man mooy daan. man daa te président Macky Sall saa yu ko waxee rek dañu leen ko. ma dikk parti bi nu mu tudd. PDS mosu génn PDS. ban Madické gi PDS am nga def ni PDS dina ko wax ci réew mi moo am yéen Sénégal yéen. yow da nga génn da nga est-ce que da nga dàq Madické PDS. ñaata PDS am ci réew mi benn PDS rek moo fi nekk. léegi maître Abdoulaye Wade moom ni doxalal. ah. Ablaye Wade papa muy xuloo moom am na daal bu leen jaxase affaire yi nit ñi gëlëm nañ bu leen jaxase yéen da ngeen bëgg a jaxase leeralal ma kon waaw léegi daal bu ñu wax ci affaire Me Ablaye Wade bu leen waxagum foofu étape par étape waaw léegi lan nga bëgg o fañi fañ fañ ngeen ko wàccataa fa ngeen nekkoon waaw kay léegi moom moom lan moo la jote la ak moom man kii dama ko bëgg na yàlla ah, non bàyyi ko rek bàyyi ko man rek parce que man dama ne ko euh, ndee la moom sa xarit la woon barke yonent bi dama ko bëgg ndee la même bu dee benn fan ànd nga ak président de la république liggéey ak moom du dëgg ndee la ak du dëgg ah yow am na deuxième pot liggéey ak moom ànd ak moom waaye yow tam am na deuxième pot non non dama ko votel waaw dama ko votel waaw c'est différent bon da ngeen a ànd ah non non c'est différent waaw dama dem si urne bi rek voté ko deuxième tour waaw mais daan nga votel ko campagne waaw daan nga wax ci ma wax ju rafet daan nga votel ko deuxième tour parce que bëgguñu woon mag euh, président Abdoulaye Wade am trois mandats ah ba pare moom ngeen bëgg ah, Abdoulaye Wade ngeen bëgg mu faluwaat encore tey mooy doon période bi ngay wax rek tout sauf Wade rek ndeysaan waa léegi ah dernière période bi ngeen koy wax yéen dégg nga bu ñu koy taf. ah ñun waxuñu ko de. <laughs> naan période bi ngeen di wax. bi laay doole ma déstabiliser. waaw léegi d'accord léegi lan moo la lan lan histoire du Sénégal. ñun dañ si am responsabilité boo xam ne il faut que ñu rétablir la vérité. gis nga of fañi fañ fañ fañ te wàcca caa. dañ ko bàyyi Macky Sall. waaw. tukkuleur sama jaamu tukkuleur boobu. waaw di ñëw di nangu suñuy bàkk maam ñun. waaw. ñun surtout Boursine. waaw ñun surtout Senghor. ñun surtout Salmon Faye. ñun ñuy sànq Fatick ak duggin bi deel ak dugub bi gën ba waaw léegi nga wax ji ñun ñoo moom dégg nga a moom. dama lay laaj. mais nag li moom dañ koy rek man mii. Macky Fatick la dëkk bi. oh fañ fañ fañ fañ toba caca. waaw doomu yandi ko yi ñoo moo koy tëgël moom sax sax. waaw d'accord. Cheikh. Aziz oh, yàlla kay bu soobee yàlla. yàlla kay bu soobee yàlla moom. bu soobee yàlla bu soobee yàlla dina taw ci sa tool. maa la wax taw ci toolu. le soleil brille pour tout yéen ñëpp dina leen tawal waaye taw yi nag dinañu xool. on va aller moom na dem jëli bàq tukulóor te bàyyi ñu suñu bàq tukulóor lan la. am ah, na je connais pas suusaa bone laama taaw waaw suusaa bone laama taaw ah. waaw nañ ñu gën a sàmmara mooloo loolu tudd bàqam la jaay temps baa ngi jeex waaw bu ko dañ koy bàyyi mu tëj non mais dafa am lu ma waxagul waxal waaw balaa moo tëj daal mais dama wax lan moo ko naqari ci mhm. gouvernement su Sénégal ak ci gouvernement gouvernance Macky Sall ba tax tey moom mu jël décision ànd ak Madické premièrement dañu nay dañu dañuy nay dañu nay waaw dëkk bi dafa Macky mm-hmm. Mm-hmm. et que foo dam mm-hmm. nit yi dañoo sonn ñu am sa dañoo sonn sàkkaatuma ñu amul ndax lu tax ñu am sonn ndax demande sociale dafa am métti mais moi j'en ai marre fépp fu ma dem si ah, foo dam rek ñu lay ñaan xaalis si mbedd bi y a trop de mendiants j'en ai marre. dëkk bi dafa makki. d'accord. dëkk bi xam nga ñoom dañoo deg si pouvoir dañ say deg comme xale yi lu ñuy wax dañ soo deg. Mhm. xalaatuñu woon sëkk dinañ nekk président ñu deg si. dañ see dal mhm. dañ see dal. waaw voilà merci de m'avoir rectifié. dañ see dal. waaw Macky dafa dal sa yëf yi. waaw bu si dalee nag. Mhm. dafa waroon def nii garmi bi. muy Abdoulaye Wade ah Abdoulaye Wade garmi la. def na Abdoulaye Wade mooy di xëtee ay 200 millions. ma ne dafa waroon tas xaalis dafa naju si kaw moo tax dëkk bi métti. a fekkoon da ko waroon tas si suuf. pétrole bi feeñ na de. waaw waaw wax ma nan lañ ko waroon tas si suuf. wax ma nan lañ koy tasee. mais su fekkoon mais Abdoulaye ah may que le cinquante millions mais loolu lu baax la. ah ñun ñu oh, lu baax la waaw ñun ñu ñu mayul nag ñun nu ñuy def ñun ñun baadoolo yi ñu mayul. ah ngeen sonn rek di di makki rek. ah ñu ba fi Ablaye Wade nekkee la ñu gënoon sonn. ma ne di dee di makki rek moo tax ñëw leen ma dikkee leen. ñun tamit ba fi Ablaye Wade nekkee la ñu boobu la gënoon a wadd boobu la dëkk bi gënoon a wadd ah non non Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade garmi la la Ila Touba bi sa kan moo kan moo kan moo laajte en tant de parti ma ne Abdoulaye Wade garmi la Ila Touba bi ngi bàkkoo kan moo ko def Macky mukk si àddina ah. kan moo chef de financement bi kan moo ko tracé Abdoulaye Wade kan moo ko def en tant que chef de parti ak ni ma ko wóolu ak ni ma ko bëggee a jël xaalis bi tas ko ci suuf dañ koy tas waaw xaalis tas te naan wax mais xaas bi man lu ma am bokk ko ak yéen. yow mos nga ñoo gis ñun ñii. lu ma am bokk ko ak yéen wala ma génne léegi. bokk ak doomu aadama léegi nga fi def ah, saag bi daal xam naa ne gis na ma léegi ma bokk ko saag bi ma dikkee na de saag bii. ah ma bokk ko ñu ne de. déedéet déedéet garaawul garaawul. saag bi moom ma dikkee na ñun ñaar ma bokk ko ak yéen. waaw maanaam askan wi. suñu faloo lu ñu am dañ koy bokk ak ñëpp. ndeysaan waaw. dañuy bokk ak ñëpp mais actuellement li fi feex ci daal bëgg naa mu ñëwaat dina ñëwaat ci kaw loolu ñuy remercier Chérif Dia waaw Chérif Chérif waaw suñu xarit waaw xam ne TFM gi la nekk TFM gi la ne moom mooy coordonné invité yi invité yi ñu gërëm Chérif bu baax Ndella yow foog nga ñëwaat su ma ñëwee rek ma conseillé maman bi boo ñëwee boo ñëwee su ma ñëwaatee gën ko toj rek ndax dañ leen fas yéene madikal dëkk bi ba mu saf sap ah léegi yëkkati xeer ak yooyu léegi candidat candidature Kouthia bi loo ci wax. dañ leen koy dañ leen koy madikel. madikel bi dafa maki. waxoon na ci sànq ah dafa dafa baax. góor gu yaru la ku baax la. c'est tout waaw léegi bu Kouthia bi loo ci wax. Kouthia candidature bi Samba Sine alias Kouthia. Kouthia ndeysaan. yaa ngi ne nga nag yow nitu dëggu nga. kon déglu leen ma ma wax ko. waaw ma taal Kouthia. waaw. Kouthia ni ku baax la. waaw ama Kouthia daf may faral di tooñ. waaw. Mhm. mais damay faral di waxtaan ak Kouthia. il est tellement intelligent Kouthia. Mhm. c' est il est intelligent. ndax léegi lan la wax ci laajum réew mi mu ne dafa bëgg nekk président de la république. jomm ko. Mhm. Kouthia mu réew mi la doomu réew mi la mais su day présenté dama ko si appuyé. dafa war a exister politiquement. ça c' est une existence politique. mënu gagné en 2019. mais dinañ gis non non non non non. te yéen ngeen ne da ngeen gagné. ah Madické mooy gagné. yàlla ñu la sant de. Madické mooy gagné te moom message yi ñëw si ñun. Madické est-ce que man est-ce que xam nga est-ce que xam nga dëggal taam est-ce que xam nga dëggal taam bu subaa bu uh-huh. subaa uh-huh. moom ak maître Madické Niang yëpp ci président Macky Sall la ñuy dem. ay xarit dina ay xarit dina léegi nag dina ma xaaral du ma nangu mukk du ma nangu mukk ñu tegee noonu Ah. ndax dëkk bi da ngeen di gis ne kii liggéey di liggéey ngeen bu ko tas si benn fan. waaw président Macky Sall musta si ginnaaw mu Ndella Madior. Mhm. musta nekk si ginnaaw. Madické Madické. Mhm. xam nga kan moo nekk ci si ginnaaw Madické. Mhm. kenn doon. ku mu jox kër kër xanaa gisu leen reportage yi tey tey tey si Facebook bi. ñun kay tey sa bos rek lañ doon xool yow. ma ne ak beneen bu bees bu génn. muy ban Madické tey ku Madické lu mu wax si Ablaye Wade. su amul yaram mu kenn ku mu daw xawma lan moo mën a daw seen yaram xanaa seetaanu leen vidéo bu muy wax dama nga dëkki sa kër kër gi faan nga résidence sa kër la loolu loolu moi j'ai regardé ce ce ce reportage dama doon jooy dama doon jooy naturellement. ku mu ko wax Ablaye Wade. Abla da ko jëloon mu ne kër sa kër la. ah mooy kër gi bu ko. da ko bëggoon mu ne du ko jënd du ko jaay kër. affaire bi c'est une histoire tellement émouvante. il faut pas séparer deux personnes. c'est une histoire émouvante. il faut pas séparer ah ma dikkee Ngok. waaw ni ko baax la. ma dikkee Ngok mu demee Thiawane ndeysaan. waaw ni ko baax la mooy nekk président billahi mooy nekk fan. ah bul sa paas jeex na waaw sa paas jeex na. may fa yéen da ngeen tiddi. ah waat gi waat gi waat gi. li nga ne billahi waat gi waat gi mais ma lay falu. ma kay falu. laati ma kay falu. ma dikkee. ma kay falu la. problème prononciation la am. la ma di laa wax. nee na ma kay falu. ma di. ah non non tegaatal film ma di. dafa bëggoon wax ma di kay falu. mu non non non ma di non non non ma di. waaw na. ah ma di ma di. waa léegi tàggool ko léegi waa léegi léegi tàggool kii le 19 na nga ko mu ñëw fii. future présidente. léegi oh. tàggool émission bi neex na waaw. c'est un ticket gagnant. waaw yow kan nga ñuy ma di kee Ndéla Madior ticket gagnant la. léegi léegi léegi yow kañ nga ñuy defe ni kañ nga conseil ñun ñu wooteel. xanaa ñun. yéen. ticket gagnant bi ma di jox leen ñu dara ñu leen kese mu ne maa ngi ñëw démarché yow dañ laa woo ah, Kouthia bi moom ma na moom Kouthia dinaa ko démarché Kouthia dinaa ko démarché waaw léegi yéen yéen naa leen ba pare ndax damaa toog rek ngeen waaw Ndiaye waaw ñu ñu wàcc Ndiaye yéen moom wàcc ngeen moom ba mu toogee sànni ñu fi xeer kër gi wéet na moom it rajo bi wéet na gaay ngay dem de dégg naa ko de non dam ko doon nettoyé mbalit ba rek la sànni ñu ñun ñu nettoyé gis naa loolu ah. Ah, embouteillage bi mu nekkoon nekkatu fi gis naa loolu ah. bañam wax sama rajo bi nga xam ne tey la gën a saf sap ay way sam Mauritanie ñuy dégg ak Guinée Conakry Guinée Bissau Sénégal lañu wax da nga Mauritanie Mauritanie man maay rajo yow daal rajo ba da ngay man maay rajo lu ko neex wax lu ma neex mu wax <laughs> maay rajo <laughs> tey la sama kër gën a set. barke ah. Rasulullah mbalit bi yëpp laa sànni. laa nettoyé bi ni ngeen nettoyé rek laa nettoyé. man yàlla dama ñëw nettoyé ma sama kër mu set wecc soo ba yëpp dañ soo duggee da nga sant que lii kër bu kër bu set la quoi kër bu set la moo tax it ma dikk dikk. Ah. ñu fas yéene ko yóbbu bale nag loolu moo leen nakari. ñu naan xoolal ma dikkee nu muy duggee. moo naqari ñaar cakas gin gin. cakas cakas gin gin ah waay sab amul coupé coupé coupé coupé.